asalaamaaleykum Gambia asalaamaaleykum àdduna wërngal képp ñu ngi leen nuyu di leen wax ne Sahel Network la ñoo fi dellusiwaat ci seen ah, city affairs tey ma ànd fi ak gan si biir ah, gën koo xamee si Serigne ah, mu doon ndaw boo xam ne waa Banjul juddu Banjul te juddu réew ma bàyyi ko mu nuyu Serigne Modou Kebe. waaw jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di la wax jërëjëf tam si. invite ba ma invite pour ma ñëw fii tey. waaw ah, ok ñoo ko déggandoor ah, kan mooy Serigne Modou Kebe ah, ñu gën laa xamee si Déco kan mooy Serigne Modou Kebe ak turi Déco bi lan moo ko indi. waaw Serigne Modou Kebe moom waaw mooy suma réel nii. maa ngi juddoo Banjul fii loolu studio laa mu sa digga Banjul laa mu sa digga. studio Déco bi ñëpp xam nañ ne comme football moo tax ñu ma di oyee waaye mu ngi dooree years ba si school JC5 maa ngi woon JC5 so because dañ amoon classes mm, ni teacher bi lañ about ECOWAS so ma answer question bi classe bi nag setting ko ñu ma so all of a sudden ñu e football game Champions game la woon match my e boy yi so ñu seetaan gis e de ko mu doon play FC Porto si biir play bi nii am ma like moo style football am nga xam ne lycée bi dama loolu si fii su bu ma delloo waat school la ma ne non léegi instead of école dama gars yi di ooyee déco because mooy suma favorite play as of now because démb ni ma ko seetaan bu play si Champions League bi pour FC pour definitely like naa play so noonu la déco bi growee ba léegi ça va fifteen years aussi ma ooyee ok mbokk yi ñoo ko diggandoor lu indi tuuti bi euh, ma bëggoon a xam Beko assez footballeur lan moo la dugal si football. waaw comme Banjul moom. defe soo fi juddoo li laa njëkk a dugal si football mooy si tali soo bàyyee Banjul ñun dañ miin FID Guinée si Johnson bi teg ñaari xeer lépp lii football bi yëpp noonu la si ñun parce que boo xale doole. defe nii da ngaa génn su mag yaa ko doon def suñu bëri ñun noonu lañ gubee itam ñu buñ doolee li dem noonu si di dem ñun tam ñu doon di play pause bu ndaw si be si biir play boobu nag si nga dee doolee di gis foofu lañ de doolee di développé ndànk-ndànk ba doo di dem si académie ah. noonu la ñuy daal Euh, gis nañ ne euh, Déco euh, am nga passion ci football te gis nañ ne bokk nga ci ay football yu bari te def nga football as professeur so Déco yow suufa bi nga commencé football ban njëriñ nga gis si football. waaw comme nu ko waxee mooy ñun dina comme man su ma seet bi maa door di léegi la solo gis gën a baax léegi la. am nga rek comme li nga soxla yëpp si modern world modern football bi right now mu fa online ñun bu ñoo ñëw nga gis ne ñun bu ñoo ñëw yow soo amee beneen daala sax daala bi na play ñetti yoon si bés bi parce que soo ko play sax na ko ñëw jël si pour use ko play na ñëw jël si pour pour use ko so dafa overnight di nga play full season without salaire so tax bi daal boos waaw defe naa dafa métti woon trop waaye sant yàlla ñu ngi doon kóob ak moom di play loolu hard di play loolu even without salary ñu doon dem moom loolu because luñ lor luñ bugga ko joxe wholeheartedly. wholeheartedly definitely don't play wholeheartedly. Mm-hmm. because easy nga war a play Monday ba Friday play Saturday si ligue bi. and then doo ñibbee dara sa famille nga xaar so easy wutoon waaye li nga bëgg so ñun ñëpp mënuñ ci woon a nekka comme lu rëy tey waaye am nañu si jot a nekka lu rëy alhamdulilah football tam Idlaay in général dafa ànd ak so ñu si jot am log ñoom jot nañ seen bénéfice bu baax a hmm, baax ok so ñu gis ne ah, bokk nga si yenn club bu ñu ooyee Heart of Banjul si biir Banjul fii ah, ah, a divisional club nawetaan team la mm-hmm. nawetaan team la so Heart of Banjul ñu ñoo hosta because dañ ñëw fekk team suñ ko ñuy play team bi dem benn liggéey mhm. ñu war a dem qualify round full start at fresh so time yi AU summit bi mhm. because buñ pétrole Fitzgerald yëpp black and white tali bi yëpp everything mu ngi rafet laa ñu waa fii war nañ koo jox tour nag loolu lañ toogee ñu neen suñ biir ñu tuddee foofu Heart of Banjul so noonu la tuddee Heart of Banjul ñu ñëwee si lañ doon dem qualify waaye it was very difficult because playing in that mm, so many six years ci qualifiers before ñu mën a dem ci nawetaan proper su dafa métti woon trop trop definir ni waaye alhamdulilah léegi buñ demee ba six years bi two games lañ play ñu qualifier si nawetaan bi from then still ñu ko maintain ci nawetaan bi oh so ñu gis ne uh, comme yow lan moo nekk sa gis-gis si Gambian uh, li football bi fii nii lan moo si ne lan moo nekk sa gis-gis si si liggéey ba Gambia bi waaw footballing bi moom alhamdulilah. diga diga asof naa mu ngi am ci bu baax. players yi ñu ngi leen tëli bëriwel club si GFF ñu ngi jël xaalis di jox pour club si mën a finance seen team. because time boobu métti woon na trop métti woon na comme mooy addu bi ñun ñu fa nekk ñun suñu club si GFF pour mu joxaat leen transport allowance yi dafa daan métti waaye léegi maa ngi gis ne GFF dañoo provide ak mhm. team ñu la jox lu la mën a du la mën a yóbbu full season yi waaye dina la sustain at least half bi or three or so definitely gaa ngi try implement mm-hmm. waaye more measures need to be taken definitely because soo bàyyee football pitch yi yëpp benn nekkatu ci up to standard apart from um, stadium bi ak kaaw mm-hmm. yooyu laa gis ne right now seen pitch bi is very good mu ngi nekk up to standard ko Banjul field bi yaaw na same as West same as East Mandjai field yooyu noonu yëpp dañ mm-hmm. defar ko pour ñu mën a nekk si top level si football bi soo demee yeneen ligue ay wut Sénégal suñu niveau ñu continue so xam di nga gis ne seen teams yi they have good facilities football bi si dëkk bi foofu noonu nu moo demee ak fii dafa uti mm-hmm. so fanaa maison joué loolu lañ war a so ñu gis ne uh, fu mu nekk nii léegi nii uh, yow lan uh, suggestion ban nga mun a jox léegi season bi because ñu ngi dégg ne dañ cancel because of coronavirus bi and trophy hand over to de si xalaat sa opinion foofu ñu ngi gis ne àdduna bi feebar bi àdduna bi yëpp ay si problème mm-hmm. so lig si àdduna bi yëpp ñu ngi gis naa ne cancel lool nañ joxuñ kenn France dañ cancel woon ne duñ jox kenn waaye recently gis naa ne dañoo jox PS ci ligue Why online ñun fii ligue bi chaque matin benn game rek lañ play benn game kese kese lañ play so still ñu ngi am about twelve more games to go and really bari ñu ngi lead six points so soo waree jël ligue bi right now loo ko really bari yow dafa mel ni already decide nga lu happen so da nga war a relegate teams ba pare da nga war a égal team from the second division انتم معلش معي شو اسمه على مكار I think this figure didn't go cancel. You cancel everything, you start over again. Why when you cancel, you hand over to Rafi. So ni you hand over to Rafi for me relegating. Wow, definitely. gis nañ ne nga ka player boo ham ne Heart of Banjul te deng dee gis player yi ya, di dugga di génna eh, léegi yow ban plan ndax yo da am plan pour buy Heart of Banjul anytime soon. non dafa mel kam xam loolu moom yaa ma appul ma génn suma liggéey dem di fanaan si keneen because man su ma néeg la ñoo solo suñ kër foofu lañ dee solo foofu la kitchen nekk everything nekk so il faut su ma demee play at moom sax awma any plan pour step aside from the team lu gis nañ ne comme recently euh, yaa ngi wax ne euh, danga bàyyi play nawetaan te gis nañ ne euh, recently sax delloo nga ay yenn bagage mel ni seen des yi ak yooyu noonu te Heart of Banjul seen te ñu gis ne Dekko mu ne bàyyi na play nawetaan lu lu waral loolu waaw bàyyi play bi tamit nekkul ne comme dama war a nekk rek di play nawetaan di play nawetaan hmm. am comme lu fay doon wax rek when king is gone king is born hmm. man defal naa leen li ma war a def pour ñoom it defal naa leen ko équipe pilaa naa leen over ñaata ten years léegi yóbbu naa leen different finals winne trophy so xëy tam tam ñu may yokk si tam ñoom tam ñu jóg ñoom tam ñu ñu mun a wane seen skill so ñun bi fa mën a nekkal ba faw foog ñu mun a am parce que ñu buñ ñëwee dafa fekkoon suñu mën ñu ñëw di fayta gaay di fayta gaay dañuy randal so ñun tam foog mu am xale yu ñëw ñun tam ñu randu gaay mun a wane ñoom tam lu gaay Euh, ñu gis la nga doon ndaw bu xarañ si wàllum football biir Banjul fii euh, comme ni ko mm-hmm. English bi day waxee rek one of the most best players in Banjul here euh, bokk si soo yow léegi tey lan moo nekk sa advice si ndaw yi nga xamante ne ñu ngi si biti te bugg a def football. waaw comme xale yi moom ma ne la njëkk a moom mooy pour ñu am patience. Mm-hmm. déglu advice ba bañ a work mm-hmm. um, fii ñi la dee kii daf la dee fayal koo bi daf la dee fayal di la dugal nekkoon di la pour suy la cali nekkoon di la pour suy la cali comme maa ngi remember benn di Tidiane Dieng ñu di toog kàddu ko naa fi ñu toog ñu gaa ngi ko drop from the other side di parce moo fa nekkoon suma mistake mu ko drop ñu ñëw kàddu ko naa jooy so mais xam nga moom dafa bëggoon a dem kenn ku nekk di ko jox opinion ñii di ko wax ñu ne fayal bàyyi bul toppa ñi waaye bu mu xoolee ni ko la advani ko moom mu ñëwee boobu lay jël continuer télé ni naam nga aftermatine bu osaan bu du ñëwee select ko mu doon di place on the seventeen ñu nga dem am team bu di dem di dem ba nekka pro so foog nag gars yi di am patience xale di am patience di déglu di déglu et even koo xam ne thirty years forty years nga gis ko si tëdd bu laa wax yow ne defal lii ak lii ak lii kooku moo la mën a dimbali kon naa ngay déglu ñooñu ñooñu parce que team si ñu ngi bëri Banjul waa Banjul am na yow Africans am na Banjul United am na team si ak yu bëri even léegi Banjul am na route ñu ngi dem si third division bi so mun naa dem starting finish foofu doo mën a xëy na si top even top players yëpp suñu expérience ñoom da am na fu ñu so loolu rek laa doon am pour lu ma mun a Euh, comme nga nekk football te yow ban développement nga foog ne Gambia Football Federation bi mun nañ koo def pour Gambia pour ñëpp mun see jëriñoo la gars yi a def right now. waaw comme ñu ni tamit bi tam pour nga govern football defe nañu anywhere in soo bàyyee ay Nigeria yi ñu ngi ubba income ñu ngi ay suuti waaye soo bàyyee ñun tax seen village yi ñu ñëw léegi di complain ne seen alawaan si dugub ay Cameroun yëpp dañuy compléter ne seen alawaan si dugub so loolu yëpp tamit tax bu métti la waaye comme ma ko waxee rek GFF nañ try defal field fi football field kon football field yi moom su baaxutee moom loo am am talent daf laa distort nañ try liggéey football field bu baax ñu gën a yokka ligue bi ñuy play outside bi ko gis naa léegi di play bi ay sooma so loolu yëpp lu baax la because am na football stars yoo xam ne ñu ngi ay Bangsang ay sooma ay Basse dañ nit pour wane seen bopp. dañ ne ñëw baal ñu always ak leen disturb ak iseeku na waaye communauté yooyu suñu amee team di jógee ba ñu travel pour dem play foot loolu daf leen leen pour ñu showcase seen talent waaye tam dafa fekk fu ñu travel pour play di nga war a am boos bu baax booy dal comme am soo gisee ñu ne nga war a la alloqué tam booy dugg bu baax hôtel booy war a loolu yëpp dañ ko war a jox ko si technique loolu a play Sony da koy jógee nga dem soo am nga la euh, nga nekk euh, ndaw yi Banjul ñu gis la nga juddoo nga doon juddu Banjul euh, yow tey lan nga foog ne Banjul la present yi Banjul right tey si développement tey yow lan nga ñu si mën a wax waaw mag yi dañu dee wax loolu nag te man dama ko doon di believe because mag yi dañu dee wax ne ñun bu toog bi ñëwee dafa sa xale si lañ gën a bàyyi loo daan ñoom time bi ñu doon play suuf bi poto poto bi because man xam naa jënd seen naa Banjul si suuna play national Banjul waaye man bu ma toogee play si nawetaan bi léegi gisuma Banjul win suuna ak loolu tamit telul wet because suñu mag yi ñoom dañ nekkoon best player si dëkk bi dañ leen yóbbu baañ leen di xëy si biti play will will journalist si baañu COP so so gars almost fifteen years léegi baañu will journalist loolu mu ngi wane ne suñ football bi still mu ngi laaj la waaye ñun dañ am benn advantage mooy um, every year dañ leen try pour isi xale bu jóg dem si division bi su ñu nekkuñu jël suñu si di leen bàyyi pour ñuy concentrer si nawetaan non ñu leen a try soo jógee soo bàyyee balaa bi ñoom Younousa ñi Zidane bàyyi xel ñoom Ali Biata fii di Ajax ñoom maam ñu nekk fii ñoom nga a euh, ne euh, nga nekk naa ne du euh, football la moom noo dee mel ak jigéen ñi dinaa bëgg nga wax naka naka dee dundee ak sa fans especially jigéen ñi out waaw non fans moom defe li ma leen say sa dañ dee gis ñi dina ay ndey dekook ah, ak yooyu xanaa kooku moom mooy soxna si wala lan. waaw waaw waaw deko dafa am jabar wala amul jabar. non non amaguma jabar amaguma jabar définitivement. waaw ah. kon Fancy moom dëgër yi dama lay kontaan si gars yi especially comme suñu ñëpp leen yi dama lay gis nii comme saa yu ma tegee comme flic yi foog ñu génne seen mobile yi ku nekk daf day am yaakaar ne kii daf ko score so after game dama lay toogee ñu seet ma vidéo suma phone bi ba sa flic yi baa ngi nii bii score nii waaw jigéen ñi ak football moom défilé bi gars yi koto yi ñu koy yàlla wax nag waaye ñu leen jigéen ñi ak football bi waaye ñu leen jigéen ñi ak football bi. <laughs> parce que waaw waaw ah waaw ndey dafa moom waaw gars yi ko dee wax waaw. soo ndey dafa moom mooy jama bi wala mooy. waaw ndey dafa waaw ndey moom ndey baabu la tudd sax gars yi ko dee ndey dafa waaye ndey baabu la tudd. Mm-hmm. mu ngi si tiro. moom kan ndey dafa kan la si yow. waaw waaw défilé bi moom naka laa ko waxee play na big role suma leen. ambiarla, es So, I'm todo. Mm-hmm. ma ne xiddandeeloo dexee bàyyil ay waxi suma dafa am yar ah ñëpp a am yar xam naa loolu mm-hmm. ndey de ko sanal la. waaw moom laa la wax pour ma la. Ah, ko waxee rek moom oh. ah, ko sooy mm-hmm. ah, waxtu xoj nañu ba pare dem del si waat dina xam dañ bëggoon léegi de ko yow lan moo la gën a si sa dundi àdduna loo xam ne soo ko xalaatee sa xol bi daf dee naxari waaw comme si football bi nii moom. definitely mu ngi nekkoon um, suñ final bi um, mm-hmm. because ben doon wan. si first half so ñu second bi play play ba ñu am benn flick so si laa jël flick bi score ma equaliser team bi waaye si penalty shootout bi first penalty bi ma miss so loolu dama ko dee over over over saa yi ma because loolu moo waral ne ko suñu first trophy. Mm-hmm. definitely comme yàlla noonu la ko tuddee waaye comme dafa dee stress always waaye comme sant yàlla léegi ñun ñëw nañ bi am benn alhamdulilah soo ku am lu la neex war a am lu la naxari de ko yow tey lan moo la gën a neex si sa àdduna loo xam ne soo ko xalaatee danga dee kontaan waaw definitely mooy suñu last final definitely loolu moom dama ko yàggoon a bugga torop torop because koñ bi nekk nañ fa tii bari nañ fa di ko nasaraan ñaari tali ken isi wit kop so min ne kon first team isi kop so lu diga diga kontak diga ak bes mo yam afrika appointed as the captain of the team oh, okay mbokk yi ñoo ko déggandoo tey ñu ànd ak sëriñ Modou Kébé ñëpp gën koo xamee si dëkko lu neex moom du doy waxtu xoj nañu ba pare dinaa leen ne dinañ am fii Sahel Network TV la subscribe leen bu leen fàtte temps bye bye